yaraw ci mbooleem lu yaay Alaaji Fallu saa soo leen bëgg tey xibaar yu wóor gaaw boole koog wér gaaw leen gaaw abonné seen chaîne bii di Ndindy Actu waaw da ngay bës cloche bi def abonné lépp mat bu ngeen bëgg a tey également ay publi reportage ñu couvrir leen également seen ay événement lu si mën a doon événement religieux politique société maanaam daal xew-xew jàpp leen Ndindy Actu mooy chaîne bi gën a gaaw waaye tamit gën a disponible ngir seen i xew-xew woote leen gaaw si service commercial bi di 77 693 90 46 wala 77 698 96 53. bilillah fii niin ak daara yàllaaw sawi baqa bi fiika yàllaaw yaa man lawol amru yaa man laa sharika lahu wasi wa ma li waa ab li fiika yàllaaw وجاتك اليوم يا رمان منتجيا فوزي بما ستوفي دنياك يا الله bii nag comme daa nekk ci dëkk bi ñu tànnoon def ko système FA maanaam franco arabe maanaam bu ci nekk cinquante pour cent lay doon xale bi li muy waxtu yi muy jàng ci français yu ni toll lay jàng ci arabe bi nga xam ne bu ñu demee ba examen collège franco arabe yi ñu ciy admet ci collège franco arabe yi la ñuy dem te dèjà am na ñu def ci dëkk bi benn ngi Daaru Salaam benn ngi Kéré Mbay gi am na bu ñuy waaj def ndindi kon opportunité lay doon ci ñiy jàng fii te dëkk ci ci ci gox bi ni système boobu lañ ko lañ ko def tax tax na itam ñu ngi ci yoonu di ko légaliser fexe ba mu am autorisation loolu tam ñu ngi ci procédure bi inspecteur académique ak inspecteur départemental bi nga xam ne ñoo yor wàllu njàng mi ñëw nañ fi ba ñu ngi def saytu bi pour pour le moment ñi fiy jàng war nañoo toll ci téeméeri gone parce que ñetti classe rek lañ ubbeegul ndax dañu bëgg euh, buñ tàmbalee ko ci suuf di ko tabax mu jëm ci kaw ndax buñ ubbeendoo classe yëpp rek niveau yi day xaw a day xaw a wuute. tàmbali nañoo jàng fi ne nii ci décembre bi lañ commencé waaw waaw am na 4 mois bañ tàmbalee jàng ak léegi. njàngum diine mi itam dañ ko cee intégré bu baax muy lu mel ne alxuraan hadis ak lu mel ne fiq ak euh, njàngaleem Serigne Touba dañ ko cee dugalaale ba nga xam ne xale bi. buñ koy tàggat dañ koy tàggataale ci diineem ci làkk yi waaye pas-pasam tam ci yoonu murit du ko du ko du ko bàyyiwaat ginnaaw. dee ci wàllu jàkka ji moom suñu blaat Bousso mii nga xam ne moo yor commission culturelle moom ñëwoon na fi bañ tànn ñi nga xam ne ñoo war a jiite waxtu yu juróom ak ñi fiy nodd nañ ko defee ci jumaa jaar lañ ko defee fexe ba tàggat leen ci ni ñu tàggate noddukat yi bayaankat yi ñu xool mm, niñ koy bayaane ci jumaa ji rek tomb yoo xamante ni du génn lislaam ak yoonu murit أجوا برامتي ألا ألاقي درا منك يا الله بسم الله الرحمن الرحيم asalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu bi nu sant yàlla jullit yonent bi di sant Serigne Touba Xaadim Rasool tey ñaanal Cheikh Mouhamadul Muntaha yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér naal yi mu naalal lislaam naalal ko sëriñ Touba mu àggale koog sagoom ñuy siyaare bu baax tey ñaanal jëmm ju sell ji toog di jëmmi Serigne Touba tey fii ci jootaay bi muy Cheikh Mouhamadul Basir moom Cheikh Abdoul Khadir ginnaaw bi nu ko sante gërëm ko te dalal ko ñu ñaanal ko Mbàkke yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér moom it naal yi mu naalal lislaam naalal ko Serigne tubaa ak liggéey bii kilifaam yi tedd yi yëkkati ko teg ko ci loxoom yàlla na ci jëf lu kawe njort ci barkeb sëriñ tubaa ba yéene duñ ci amoon ba jox ko ko rek yàlla na ko ci sëñ bi defal liñ naan wa yëpp tax yi faw xal maram yàlla mën na ko yàlla na ko defal ñuy siyaare bu baax njabootu boppam gépp buñ ci jiitalee Serigne Abdoul Aziz Mbacke mii moom sëñ di Madiyaana moom sëñ Modou Lamine Baara Mbacke Xaadim Rasool mi ngi nii toog. tey man nañ ni nag ñi fi teew ñëpp ci kanamu sëriñ Basiiru moom mii mooy jëwriñ ji ndax bi sëriñ bi agsee moo ko dalal daal di ne daa di ne nu ko sëñ bi bëggee rek noonu lañ koy defee kon Mbàkke noo lay sant noo ngi lay gërëm di la ñaanal gudd fan ak wér bis bii nu fi daje daal yàlla nañ ko fi dajabaat téeméeri atu tàmbali tey te nga xam ni daal Cheikh Souley moom bég na te it xolam sedd na cant ji nag ñun ñi ko jaarale lott nañ ci lool ci sunu làmmiñ ndax dafa ëpp doole fop yéen a ji ca jiitu xolam daa ëpp doole ni ko sunu làmmiñ man a waxee kon daal Mbàkke mi ngi lay sant mi ngi lay gërëm réew mépp a ngi lay sagoo réew mépp a ngi lay safoo ñëpp a ngi lay gërëm kon Mbàkke noo ngi lay sant noo ngi lay gërëm loolu daal la waxoon ni nan ko joxal ci kàddu yi la ci des nag nee na nu delloo ko sëriñ bi nu mu ko bëggee rek incha allahu rabbi kon jëf sëriñ bi ñu lay seeral ci moom wama na ila bi ma alim na nit la koo xam ne wërsëgam yemalewu ko ci boppam nit nag su fekkee ni teraanga ju nekk fu ne la koy dugal ci addina di liggéeyal sëñ Tuubaa du ngeen taxawee ci kanamu kilifaam Alaaji Mouhamadou du jaañ nga ko seere su lay ñëpp lay dimbali fu ne lay liggéeyal sëñ Tuubaa fu ne lay wute sëñ Tuubaa te sëñ Abdou Aziz mii kat yaakaar naa ni ah, bariwul foo koy gis waaye du du fekkee njëkk ci kër gi di doomi soxna Fatma bokk ak moom ndey bokk moom lépp di seen kilifa teeru la man mosuma ko gis mu def lii sax kon ni ko su lay jàppe rek moo tax mu def lii te lii lii beneen baatin xewaat ci ñu bokk nday bokk lépp bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamin asalaamualeykum wa rahmatullah mbokk yi fi teew yëpp di mbokki taalibe yi ngi leen di nuyu ci suñu kaddu kilifa suñu wayjur suñu sëriñ di Cheikh Mouhamadul Bachir sëriñ Abdoul Khadir moom itam muy joxe ndigal ak di dox ci tànki magam kilifaam magam yi dox digganteem ak sëriñ bi ñëpp ne di sant yàlla bu baax. ci taw féexi fekke jotaay bii ndax dama dawoon rek ñëw jox sëriñ Suley sama ngant far dajeeg taw féexi sëriñ bu tedd bi di Cheikh Mouhamadul Bachir ci bu tedd bii ci bis bu tedd bi ci rajab di guddi àjjuma gi mujj ci rajab mu jiite ñu julli timis. mu jiite ñu julli timis. loolu sant yàlla la ak tawfeex gu rëy la. loolu sant la ak tawfeex gu sëriñ Serigne mi taxoon ñu ñëw nag. Serigne Souley mii ñu taxoon ñu ñëw. waajuram mi nga tudd. waajuram wii mu tudd léegi. day sunu waajur. muy soxna Fatma Diop day waajuram wu jigéen moom. taxaw sama mag lool maam Ami Abo. taxaw sama mag lool soxna maam Ami Abo. moog soxna Diagne. mook soxna Jaañ magi su benn jenn jëmm lañu soxna it famille sëy famille ka ko yor di sëriñ maxtaar di kenn ca guy mbind di kenn ca guy mbind fonk ko ñëpp mu fonk ñëpp mu fonk ñëpp am fa yu rëy yooyu yëpp daje yooyu yëpp daje biñ ma waxee bis bi démb biñ ma waxee bis bi démb maa ngi ko di ko topp. fekk maa ngi ko doon gis di ko topp. ma am ngant. ma am ngant. man naa ñëw siyaare ko. ma ni naa ñëw siyaare ko. far daja fekk xéewalug. far daja fekk xéewalug. nuyu sama baay bi. nuyu di sama sëriñ. nga xam ne bis biñ ko gisee. nga biñ ko gisee. dañuy am dañuy am mbégte. yu tegaloo. ne mbégte yu tegaloo. benn benn. ni nga wax gisub murit. gisub murit. ngir man cee barkeel roy ngir man cee barkeel roy ci. gisit suñu sëriñ. gisit suñu sëriñ. gisit suñu doomu sëriñ. ndax. ndax. moom. moom. dañoo yilif wet gu ne. dañoo yilif ci wet gu ne. waaye nag ki yilif. waaye nag ki la buñ ko mënee tiitaroo. buñ ko mënee tiitaroo. day neexaat. day neexaat. jëmm ju neex a tiitaroo jëmm ju neex a tiitaroo moom sëriñ Basiru Abdul Xaadir. ndax ba mu yoree kàddu yoon wi. ndax ba mu yoree kàddu yoon wi. ci la ñu bari ràññee. ci la ñu bari ràññee. waaye nii mu mel. waaye nii mu mel. ci mbokk gi. ci mbokk gi. ci fonk sunna. ci fonk sunna. Mm, royee ko ca waajuram wa. royee ko ca waajuram wa. muy Cheikh Abdoul Khadir. nga xam ne xeebalul kenn bisam. nga xam ni xeebalul kenn bisam. noonu yi. noonu la meloon. noonu la meloon. Muntaxa magam ji wax. muy Cheikh Mouhamadul Muntaxa magam ji wax ci moom. yaram bii. yaram bi yanam bi yanam ko da koo dab. da koo dab. waaye nag gisuma ne yokk na ko ak pas-pas wala doxin. waaye gisuma ne nag yokk na ko pas-pas wala doxin. ndax ba mu daata ñëw ci ndax ba mu daata ñëw ci moom it. képp ku am yitte. képp ku am yitte. ci ahlu bi. ci ahlu bi. ak tariqa bi ak tariqa bi. bu ko yëgee bu ko yëgee. te nga jox ko ne te doon loo dara. ne Serigne Bass. dana ca def lam man lépp ca yooyu jamono ci taxawu ak ci yëg ak ci sagal loolu yi nag euh, li arab naan jomb ne li arab naan jomb jombuwul jombuwul ci kuñ ne ne ci kun ni sëriñ Abdul Xaadir mooy sa wayjur boo amee yitte ak yëg ak njariñ nag lool ci doomu aadama yi kenn du ni jomb na ak waay juróom maam daba mooy sëriñ Mbacke Bousso di sëriñ Bousso be di mbokkum sëriñ bi ci wat yëpp rek képp fi nekkal sëñ waaye képp ku fi nekkal sëñ Touba. waaye kuy kilifaam. xam. loo xam. doo xam diisug sëñ sëñ Bas. doo xam diisug sëriñ Bas. kon. bu Cheikh Bass ñëwee. du Cheikh Mamadou Bachir ñëwee. yoon wépp teew na. yoon wépp teew nañ. maa ngi maa ngi sant sëñ Souley maa ngi sant sëñ Souley mii nag. ak i xaritam ak i xaritam ak i mbokkam ak i soxnaam di ñaanal suñu yaay ji soxna Fatma ak soxna jaañ ak seen njaboot gépp yàlla barkeel leen guddal seen fan guddal seen fan bu ma nee ay xaritam ni ay mbokkam ni ay soppeem ñëpp dugg nañ ci. sant sant nañ gërëm nañ yàlla yàlla may ñu fekke ko déwén barkeb sëriñ bi te ñaanal Cheikh Mamadou Mountakha mu yàgg fi lool te wér ak jëwriñam ji ak rakkam yëpp ak suñuy kilifa yi dox suñu diggante ak seex yoon wépp ndax tey jii. xafla la ci yoonu murid ne xafla la ci yoonu murid lu ñuy def murid ya lu ñuy def murid ya ñu ne ubbi jumaa ñu ne ubbi jumaa lu ko gën a neex sëñ bi defe naa amul wasalaamaaleykum sëriñ Basiru nee na mi ngi nuyu ñi fi teew ñëpp nee na teg bi ci loxol sëriñ sëriñ euh, sëriñ Abdoul Aziz Mbacké moom sëriñ Abo moom Cheikh Mahamadou Lamine Bara nee na ak booleem mbokk yi ñu fi fekk yëpp muy Serigne Mountakha moom Serigne Modou busa Dieng ak seex Silla mi mu àndal ak Cheikh Abdoul Ahad Bousso nee na ndax tey sax xam naa ne ñetti Abdoul Ahad yi la leen di wax nee na tey ñeenti kon ñeent yu taw feex la ñeent yi la leen di wax ak ñi ngeen àndal ñëpp ci waa Muxaddamatul Xidma nee na Cheikh Mouhamadul Mountakha yabal leen fi ngir ngeen taxawu jàkka ji nee na kon sëñ Souley ñu ngi lay nuyu bu baax nee na di rafet lu jëf jii nga jëf ndax lii sëñ Abdoul Aziz seere nee na te moom xam naa ko lu wax rek lu mu gëm lay doon nee na moom mii sëñ Abdoul bokkul ci ñi jamono fëkk nee na fekk gii ma ko fekk rek nee na doy na ma seede ci sa dëggu nee na kon ñoo ngi lay sant bu baax di la ñaanal lii nga xam ne jëfal nga ko lislaam jëfal ko sëñ Touba nee yàlla na ko sunu borom nangu te kàttanal leen ndax nee na li am solo rek ci àddina nee na ku yàlla defal ndimbal nga delloo ko ci moom nee na waaye loolu moom ndimbalul yàlla la nee na ndax bokk na ci li gën a jafe te moo am njariñ ci àddina nee na kon bu ci sunu borom xiiree nee na dañ lay ñaanal rek mu gën la cee xiir ndax nee na loolu rek moo am solo ci àddina nee kon ñoo ngi sant bu baax nee na di ñaan jàkka ji nee na nii ko sëñ du waxee léegi bokk ci la masjidun ussisa ala taqwa nee na te loolu rafet nañ ci njort ndax fii nga ko def ak nee na bu toon lool bu du lépp itam kii fi nekkal Serigne Touba nee na bu nangoo jëf ji rek nee na seede na nee na yabal fi waa muxaddamatul xidma yabal fi cheikh Mouhamadul faadal suba moom cheikh Abdoul Khadir nga xam ne moom lépp lu mu war a teew ci wàllu googu rek te munu caa teew nee na moom la ci yabal nee na bañ na ko ba ku fi bàyyi ko nee na bu àndee ak moom sax ak sëriñ bi. buñ demee sëriñ bi ci ginnaawam lay taxaw nee na loolu nag sëñ bi ab junj rek la ci jublu te nee na loolu it leeraloon na ko ko nee ndax am na ci boo xam ni nee na dañoo ànd nee na yaakaar na ni booba nee na bi ñuy denc sëriñ Abbas wala sëñ Moustapha sàmba benn la ci ndax nee na ñaar yëpp ñu ànd waaye sëñ bi def ko ni nee li ma ci jublu kat bëgg sëñ Fallu nim ma doyee ma ne ci ginnaawam ba ñëpp xam ne noonu la doye nee na loolu rek la ci jublu nee na bu ma ko mënee it moom lay jiital nee na kon noo ngi ciy sant bu baax nee na di nuyu Modou Diagne sa rakk nga xam ne waxtu wu nekk moom nga daan yónni ci moom nee na mi ngi lay ñaanal bu baax ci barkeb Serigne Touba yàlla sunu borom nangu jëf ji te barkeel ko tabbal ko ci biir liggéeyub sëriñ tubaa bi te sëñ tubaa nangu ko ndax nee na ñun taalibe yi sëñ tubaa kat lépp wépp yu wuñ def addi sëñ tubaa rek lañ ci jublu te buñ ko defee itam nee mooy gën a gaaw ci sunu borom nangu ko nee na jërë ngeen jëf jërëjëf خد اكتفيت بي في الدفء والجلبية سالخلق يا الله يا روش مولى يا الله جفلو saa soo leen bëgg a xibaar yu wóor te gaaw boole koog wér gaaw gaaw abonné seen chaîne bii di Ndindy Actu waaw da ngay bës cloche bi def abonné lépp mat bu ngeen bëgg te également ay publi reportage ñu couvrir leen également seen ay événement lu mu si mën a doon événement religieux politique société maanaam daal xew-xew jàpp leen Ndindy Actu mooy chaîne bi gën a gaaw waaye tamit gën a disponible ngir seeni xew-xew woote leen gaaw si service commercial bi di 77 693 90 46 wala